nañ ba Mati doxalal Abou Mouhamed di la nuyu bu baax a baax waaye tamit di la ziar waaye noonu la ko fii nuyu àdduna wërngal këpp comme ni ñu koy waxee ginnaaw mu yegg sax yàlla la neex laataa ñuy door dañ koy santaat bu baax daal di julli daal di sëlmal ci sangu-sang yi moom Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa waaye ba tey naan jërëjëfati Serigne Touba sama yaakaar yi tey ak suba ba tey ñu am mbégteeg bànneex jàkkaarloo téléspectateur Futurs Médias di leen présenté suñu gaamu day by day bi nga xam ne moo nekk ci table bi mu nekk ay lait yoo xam ne baax na trop fi jamono toll ndax buñu nee jamono yaram da jël lépp boo leen ko jëndee jëndee baax na lool ci li nga xamante bi mooy crème bi am li nga xamante bi mooy savon bi am li nga xamante bi mooy gel de bain bi te bu ci nekk boo ci jël léeg baax na trop ci li nga xamante bi mooy jamono ni yemul foofu gis nga poudre yi ko accompagner góor jigéen mag ak ndaw ñëpp ko mën a def dina féex bépp picc bu mu fekk sa yaram da koy daal di dindi waaye ba tey nag ma daal di ñëw ci sama day baay day bi xam ne maam yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi toog di seetaan li nga xamante ne booy émission bi dama leen di conseiller nañ leen ko jëndal tànk yeeg ndigg yeeg loxo yeeg yëpp foo leen ko def rek day daal di sedd daw leen gaaw jënd ji ko ba tey mi ngi ci bi moom baax na trop waaye li ci gën a neex mooy samay gel de bain nag gaam boobu nag pour góor yi rek ñoo ko tax a jóg ndax ni mu amee góor noonu la amee li nga xamante ne bi mooy jigéen gaam bi ngeen di jàkkaarlool moom pour góor rek moo ko tax na li nga xamante mooy gel de bain bi am lait de corps bi waaye sakos bi nag di jënd naan jox ma benn wala jox ma ñaar ko naan jox ma li nga xamante ne bi mooy sama saak rek ma daal di koy yóbbaale am na li nga xamante ne bi mooy crème boo leen rasé pare da ngeen koy daal di def picc bu mu fekk seen kanam da koy daal di dindi am li nga xamante ne bi mooy rasoir mucc ayib parfum baa ngi ci am na gel de bain bi am na li nga xamante ne bii mooy savon bi ak lait bi pour góor rek moom tamit moo ko tax a jóg waaye dama koy jaajëfal bu baax a baax moom sama sponsor bu yanj bi ndax peccum liir bu neexee nday jaay jàpp ca mbagg ya te kenn du gërëm ki xaram ki xamu taal bi ki taxani toog boo leen di am émission bi di bëggee di reetaan grâce a sama sponsor yi damay daal di bàyyi la ci barke alxuraan mbokk yi am nañ ah, ah, ah, ñoom ñi nga xam ne nag wax dëgg yàlla ñoo fi jiitu dikkee nag njaboot yi defal jàmm may leen fan bu gën a wér yaram njabootu yontu Muhammad sallallahu alayhi wa ak yontu yàlla Yeesu Krista borom xel ak mboolem jullit bu nekk ci réew mi suñu bàyyi ji di alaaji ma deer yal ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak yaram alaaji ma deer nag ah, ñëpp xam ne wax dëgg yàlla moom mooy borom jàmbu Fall di ko ñaanal yàlla dafa ko jàmm ki nga xam ne sëñ Babacar Si rabel taal anhu moo ko moo mbokk yi dañuy kontaan ci ki nga xam ne nag moom mooy euh, toog di ñu seetaan di ñu bëggee suñu yaay yu baax yi suñu baay yu baax yi xale yi nga xam ne ñoo maas ñoom jamono ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm xam nga ku ñu seeti maître Madické Niang mi nga xam ne tey dafa indi loo xam ne lam doon artu ca violence ba loolu moo nag commencé law ba fu mu ne nii ma ngay tàng diggante Bamba Fall ak Cheikh Ba bu ci gars yi waxul léegi lu doy waar dana am ñu dem seeti Madické Niang mi nga xam ne tey indi na raison de bien prévenir que de guérir Madické Niang fii toj na fii ne na def fii toj na Madické Niang fii toj na fii ne na def fii toj na Adja Khoudia fii toj na fii ne na def fii toj na Madické Niang fii toj na fii ne na def fii toj na Adja Khoudia maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla suñu borom ca la ma leen waxoon gis nga nag élection yi ñu ngi dem ci ci pandaw gi jour ji mooy deux ñaari fan ci des waaye nag tey boo yow ba xool journal yi ñu naan Bamba Fall jàppal Cheikh ba Cheikh ba jàppal Bamba Fall coolu commencé na te nag ñoom ñëpp ñoo bokk benn gox dañu bëgg a defar rek li ñu bëgg a defar tey nag bu fekkee ne tey ay askan ñoo ñëw bëgg kaa yàq te ñoom ñoo ko war a jëriñoo seen partement la que Bamba Fall li nga xam ne tabax na ko bëgg ko intégré ñee bu ñu ñëwee na dañ koy yàq wala dañuy yàqante seen biir ñii door na kii kii door na jàppante bi wax dëgg yàlla te ñoom ñaar sax bu ñu xoolee seen tur dañu war a juboo Cheikh Tidiane Ba ak Bamba kii Cheikh Tidiane bala la kii Cheikh Ahmadou Bamba Fall kon tey wax dëgg yàlla kenn ku nekk war ngaa jël sax loo xam ne rus sa tur sax ci boppam jéem a indi jàmm te loolu yàgg-yàgg kii gañe yàlla wax na ko ba pare kon du ay xeex mooy tax ngay gañe du ay xula moo tax ngay gañe li war a def mooy mobiliser seen ay troupe indi jàmm wax leen na nañuy wotee ba kenn ku nekk mën a wote ci jàmm parce que Medina benn bopp la te kenn mën a kaa xaar ñaar réew mi nag dañu war a waxtaan nag ci li nga xam ne nag mooy violence verbale yi am ci dëkk bi Sénégal nag mu ngi commencé di jël jëliwaay boo xam ne tey dafa mel ne pire sénégalais ci ndey ak ci bàyyi da dañu kaa perte sax léegi gisatuma ko parce que da ngay gis ay jikko yoo xam ne daa woon gis ci réew sénégalais da nga ko doon gis da nga ko dégg rek waaye léegi nag ñëw na ba gane si ñu daa dee toog am fi kër dëkk fii mu ko am ak njaboot moo tax may ñaan président de la président Macky Sall mu wax ak ñi nga xam ne ñoom la war a waxal ñu yor intérêt ak kaaraange sénégalais yi parce que cool yi ak détails yi nga xam ne moo am ci réew mi léegi bëri na trop saagante bi ñàkk li dama koy wax bés bu ne waaye nañu duñ ci bàyyi xel parce que soo gisee may wax loolu dafa am fu ma taxawee suñ mun taxaa bas suñu mbàkki xale suñu akul murit daf na ma bàyyil politique am na la ka dàq <laughs> saa ay ma xëy rek gis firnde bi sànnante xeer yi saagante di ñàkk warma bi loolu mooy loolu moom loolu la gisoon ne am na ñoo xam ne tey waruñoo taxaw sax ñu leen dugal ci ci waxtaan yu mel noonu kenn du su kenn du sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalifa général ku lu mër lu muy gis lu muy gis lu sori di kaa wax buñ la koy wax da ngay am sax da ngay ne xam nga aal dafa am solo moo tax lépp dama ko gëstu defe ko si ndigal rek déglu ndigal te la ma sëñ bi waxoon nag wax dëgg yàlla maa ngi koy dund nag am na lu dàq politique loo xam ne sëñ Tuubaa dental na ma ko fii toj na fii toj na fii toj na fii nee na la yàq fii toj na aja aja fii toj na fii nee na la yàq fii toj na fii toj na fii nee na la yàq fii toj na. xam ngeen élection présidentielle yi mujj nañu waxante dëgg rek te yàlla tax boo leen gisee ni ma doon waxee réew mi ñëpp am jàmm président Macky Sall sa wax nañ ko wax na ko président Macky Sall jéey na ba Seydou Ba invité na ko ci émission am. def émission ci moom mu ne ko Madické Niang suñu grand la ku baax la ni muy politique dafa neexal campagne bi man ñëwoon pour indi ay fitna dama doon war rek façon bu ñuy campagne li ngeen doon wax ni fii toj na fii nar a jax fa doon jaar ñëpp jël ko mu am jàmm ma neexal campagne bi waaye teewul sama bëgg-bëgg yàlla moo ko dogalul nit day xam ne ne boo demee bëre ji da yóbbaale ndam waaye da ngay sóoraale tamit bañ am ndam soo amee ndam nga xam ne yàlla moo ko bind soo ñàkkee ndam nga félicité ki nga xam ne moo la daan bëre neex na waaye ku daan ci kaw lay féetee kon nañu xam ne ne réew mi war ñoo toog di seetaan loo xam ne dafa ñaaw ci Sénégal su ma déggee coow li ci bëri internet bi waxante bi wulante sutura bi ñàkk kersa bi am xale yi am léegi ci seen diggante loolu yëpp dañ koy tënk daa dee xool ne nag am na am na yoo xam ne xale yi moom la ñuy xool xam nga télé bu njëkk ci kër nañ ko doon daaj ñëpp daa dee toog di seetaan waaye xale ku nekk da am sa télé boo duggee sa duus seetaan boo génnee ci mbedd bi seetaan sa baay ak sa yaay bu ñu la yaree ba pare defar la ci yoon boo génnee téléphone yi yàq la <laughs> téléphone day yàqee waaye noonu lay defaraatee yaay xool li la bëgg a nga xool ko li la bëgg a yàq nag bul ko xool am na ay coow détail yoo xam ne nit ñi war ñu koo seetaan léegi Sénégal daal wax dëgg yàlla senegal toj na senegal nee na rajax d'accord xam nga léegi man tojatuma fenn rajaxum tuma fenn ah. fi toj koy mooy senegal toj na senegal nee na rajax ah. loolu ngeen war a taasu waaye lii wartu leen ko taasu parce que da ngeen war a xam ne Sénégal toj na Sénégal nee na rajax looloy yoon bi looloy yoon bi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 ñu seeti Ablaye aw la ñoo wotel ñoo tey aw la ñoo wotel fii tey aw la ñoo wotel aw la ñoo wotel ñoo tey aw la ñoo wotel aw la ñoo wotel ñoo tey aw la jërëjëf jërëjëf doomu ñaamur ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu ngi am mbégte bu rey ak contentement bu rëy li ñu dese nag ñaari fan kese la na nit ñi xam ne wax dëgg yàlla soxla yi ak aajo yi ñu ngi ko mën a faj ci kaw lii nga xam ne bëgg nañ koo doxal ak yéen ngeen jàppale ñu dëgg la waay kuy raam di la boot bu amee ay tànk yu dëgër mën naa daw ak yow te li ñu bëgg moom mooy fexe def politique social politique bu durable boo xam ne dina sukkandiku ci ay tànk yu dëgër ba fexe ba Louga ci boppam mel melokaan boo xam ne région région de référence lay doon capitale régionale lay doon boo xam ne day ibbeeku ci biir àddina ñu xam ne Louga am na ay partenaires dans le monde oh. ci côté social dox nañ ci liñ ci war a dox ci côté santé indi nañ ci loo xam ne wax dëgg yàlla xaaruñu dégluwuñu ci suñu kopparu bopp en fond propre nañ ko jëlee def ko ci te woowuñu kenn pour wax leen ne lii lii ni lii fee lii fële ñun ñoo ko def ndax yàlla tax jaamu ci yàlla ak jaamu ci soxla doomu aadama yi dama ne waa Louga une chance est donnée te chance boobu yéen ko téye man yàlla def ma ñëw ànd ak yéen pour indi leen ci li nga xam ne fi ngeen nekk da ngeen nekk ci kàmb lu ci kàmb la nekk dañ ko bëgg a génne ci kàmb gi yeewi ko bàyyi ko mu doxal boppam ànd ak ak li nga xam ne moom lañ bëgg ndax lu ko dafa war a soppeeku aw la ñoo wotel la ñoo wotel gëna lan la ñoo wotel ñoo tey aw la ñoo wotel man la ñoo wotel ñoo mi fii ci Louga. fii ci Louga. fi may daanalee. mooy dama bëgg doomu Louga yi ñu xam bu baax. que c'est un choix historique. juróomi at du juróomi fan. du juróomi weer. soxla yi day continuer di taxaw. kenn ku nekk na nga wax sa moroom ni Ablaye Diop di doxalee. su ko defee li nga xam ne moom nañu def pour Louga daa dee am. infrastructure yu dëgër. ndax suñu ay baay ñu fi jiitu woon. te nekk ñoon ci administration yàlla leen wërsëgale def nañ fi li war a def am na loo xam ne nag nit koo xam ne sa mu noo ko attan yoo kese waaye bu la état doolelee ci li nga xam ne moom mooy gestion de la commune et de la cité boole ak li ñu am ak suñuy partenaire yaakaar naa ne Louga politiciens yi dootu ko yor ndax politique politicienne la ñu def Ablaye Diop yaa yëngal gasam ba gasam yëngu yaa yëngal gasam ba gësëm yëngu Ablaye Diop yaa yëngal gësëm ba gësëm yëngu laay Diop laa yëngal ba gësëm yëngu laay Diop ba gësëm yëngu laay Diop yaa yëngal gësëm. mbokk yi am nañu mbégte ak contentement bu mag ànd ak yéen seen émission Kouthia Show président Doumbouya dégg ngeen ko démb li mu wax équipe am nee na góorgóorlu leen te la ma leen waxoon dara changé wu ci. match nul baax na defet baaxul victoire ko gën a lu mu am waaye comme que Guinée qualifié na nee na moom à 80 pour cent. wax dëgg yàlla certification bi mu am mooy waxam ba joueurs yi bàyyi nañ ci xel te gis nañ keroog dañoo rey seen bopp nee na moom en tant que militaire gis nañ ne homme de terrain bi nga xam ne nag moom la militaire di def ci en guerre gis na ne vraiment les Guinéens c'était des militaires sur le terrain mais na guerre boo ci dem da ngay perte mbaa nga avancé te en technique de guerre bu fekkee ne fexe nga ba gérer campement bi li nga xam ne moom mooy sa ennemi fu mu nekk ba repousser ko xamal ne am nga victoire boo qualifié na mooy maanaam pousse nga sa ennemi daal di koy fekk si si zone am loolu nag président Macky Sall da cee jàngat ndax première victoire Lyon deuxième nul troisième nul ah Doumbouya inspiré na Macky Sall nii la Macky Sall war a doxalee ñun nag ñoo ko xalaatal Macky Sall pour mu doxalee noonu ñu seet président Macky Sall mbiyee Sall soo xaalee jaboon Macky Sall ari maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant mais temps yi qu'est-ce qui se passe dans le pays dëkk boo xam ne y a trop de détails mu mel ne maître bu nekk ci classe am mu am ay bavard yuy wax te ñeneen ñi bëgg a jàng coow li nga xam ne laay dégg ci réew mi mais mais mais qu'est-ce qu'il dëkk boo xam ne dañuy topp di topp nit ki ba mu sës ko loolu moo fi war a jeex violence yi nga xam ne nag mu ngi am ci élection yi loolu danaa ci jël ay décision ferme parce que nit ñi kenn mënu leen tere doxi seen soxla nañ ko def dans la plus grande liberté d'expression et nit ñi tamit dox circulation des biens et des personnes mu normal te kenn bañ a gaañ kenn boo nekkee njiitu réew dangay boole loo xam ne moom nga war a def ci fulla ak ci fayda yéen nag équipe nationale man maa doon layam-layamee layam-layamee nag dafa commencé ëpp parce que mënuñ leen jox suñu xaalis coupe d'Afrique bi passé ngeen dem ñu duma leen deme ñu duma leen final ma bañ ngeen mer ma yëkkati koppar yu bëri teg leen ko jox leen ordre mérite du lion nga xam ne il faut nga xare pour am ko ma jox leen ko ci loo xam ne yéen dañu leen duma ñu ne benn waaye ngeen ñëw ne budget bi dafa tuuti moo doublé waat ko jox leen lu toll ci deux milliards Sénégal yëpp di leen seetaan ngeen gagné benn yoon match nul match nul loolu mënul continuer xaalis ngeen di yóbbu c'est l'argent du contribuable du man que moom état bi moo koy jël di ko jox xaalisu sénégalais bi fay impo juutikat bi laaj juuti marché ñu koy jaay katu kercax bi di ko jox cent francs par bés loolu la ñu jël dajale leen jox leen ko man nag du ma yor régime militaire di sanction ay sanction yoo xam ne droit de l'homme sax xëy na bu ko dëggee ne kii ni muy doxalee baaxul mais nag na ngeen xam benn affaire match bi ngeen war a football ak Cap-Vert Cap-Vert il la xeebuma ko waaye boo leen layam layamee boo fa jëlee fa match nul war a ngeen jëlee fa defet wax dëgg yàlla dinañ def kon li CEDEAO wax danañ tëj frontière aérienne ngeen wàcc Gambie war a ngeen wàcc beneen dëkk waaye Sénégal kenn du leen bu fekkee ne mënut a ñàkk ba mënut ñàkk boo leen di ñëw ñoo leen xaaju guddi parce que ñoo fi bëccëg ndar kam xale yi di leen gàttandu ak ay yuxu di toj kaar yi di toj leneen boobaa ñun ce soulèvement populaire boobu la ñuy bañ ñun bu ñu sañoon tey da ngeen di ñëw ñu teeru leen mais lan la seen ay moromu góor ngeen di fubalal quand même ñuy lekk ngeen di lekk ñuy naan ngeen di laan ñu am jabar ngeen am jabar ñu am yaay ngeen am yaay ñu am papa ngeen am papa mais qu'est-ce bal bi boo ko jëlee passe ko Sadio Sadio passe Bouba Sarr mais ganna gay qu'est-ce man dem dama yuxu mais qu'est-ce qu'il y a bu fekkee ne affaire bi dem na ba toll nii dañuy wax ne bii pa bu fekkee ne jël ngeen defet ci match bi ba Sénégal toog ah man dinaa bind waa kaf ak FIFA que Sénégal fii ak 10 ans dootul bokk ci Coupe d'Afrique affaire football nag suma xam-xam da ci sori parce que ASC Pël gi nekkoon Fatick nekk naa fa gérer section supporter ak commission culturelle maanaam fóoral ak supporters yi yooyu laa gérer woon dama bëgg ñu xam benn affaire bés bu ñu dof dof la woon man maa leen koy wax man duma def kon dumbuyaa du ma benn yoon ay prime waaye loo leen defati yéen fay seen bopp ndax état dootul jël ay xaalisam du ko perte comme ça li ngeen am basket bi amu ko li ngeen am handball bi amu ko li ngeen am ñeneen amuñu ko kon bu dul dara ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen seet loolu parce que am na dëkk yoo xam ne tey ñuy fubal ci fitna parce que da leen ko teg léegi nag man damay jël benn décision personnelle te naa ci wax ak assemblée nationale ñu voté ko diggante fii ak seen match bi nga xam ne moo war a am diggante cap ñi nga xam ne dañoo am occasion war ko dugal te dugaluñ ko du ñu dugg Sénégal ku ci raté penalty tamit wax dëgg yàlla vol bi lay jël di ko raté doo ànd ci délégation boo xam ne da ngeen war a ñëw teeru fii ci aéroport ñaareel bi du ñu def loo xam ne kon dumbiyaa mu ko defee parce que du ñu tas yaakaar waaye boo leen jorotee bal xool leen bu baax fa ngeen ko paas quand même mais diggante Sadio Mané ak Gana Gueye xoolal la jeune jeejun mu def keroog man dama am sa benn instant pour ma xar télé bi dugg ci dugal bal bi tey bu fekkoon match présidentiel la Sénégal Afrique du football ak ay pays Europe man da lay wóor na damay doon capitaine war a góol war a défenseur mais Cheikhou Kouyaté tamit nan lay mën a defee ay yoon loo xam ne bañ koy jox ñaari yoon carton rouge carton jaune mu toog match bi barke Demba ci télé bi laa bëggoon dugg wax ak na ko mais lii lan la nañ waxante dëgg damay woo yéen Dumbuya keroog daf ma woo nan ma vraiment match yi lii kërëb kërëb samay nawle laa nekkal tamit ku nekk da ngay woo sa morom di félicité bu match bu jeexee waaye ay match ni yu tegloo bu yàggee day xaw nuroog affaire bi ma tey ah bu fekkee ne mënu leen ko ñu jël mbëri entraîné la ñu dem waa jeng na nga def sawa sawa <laughs> Muhammadu Rasulillah sallallahu ala Muhammad Rasulillah mbokk yi am nañu mbégte ak bu mag ànd a yéen seen émission Show di gërëm képp koo xam ne yaa ngi seetaan rawatina ñi nga xam ne ñu nekk ci réew mi ak ci bitim réew sant nañu nag ñi nga xam ne ñooy kilifa diine di la ñaan jàmm di la ñaan salaam tamit waaye dugg yàlla di ñaan tamit bu baax réew mi yàlla def ci jàmm def ci sutura def ci li nga xam ne mooy kéemtaan ak lépp nag waaye mbokk yi euh, ki ñuy seeti Tamsir soxna la Tamsir Soxna nag jour ji mooy de ah bëggal na mag ñi ci yoon bi nga xam ne mooy ci religion jàppale femmes yi ci li nga xam ne moom mooy ay financement waaye Tamsir dafa am lu benn candidat amul <laughs> Tamsir Soxna mooy le seul candidat dans le territoire national boo xam ne xale yi ñoo dajale seen xaalis seen xaalis ñoo jokkoon ko ne ko dañ lay jàppale pour sa tournée am ay jeunes ñu dajaloo ne ko lépp loo xam ne da nga ko bëgg xam fu doxal ci Sicap dem nañ ba jëli ko ñoo teg ko sa loxo nii nañ bëgg nga doxalee nii nañ bëgg nga doxalee yow direction bi dañ la ko jox baar bi waaye essence ba la ci dem yëpp ñun ñoo ko gérer moom nag wax dëgg yàlla dañ ne porte bonheur Sicap la moo tax xale yi tànn ko ci couche sociale bu nekk dañ ko faa tànn jeunesse ba moom la ñu tànn mag ñi moom la tànn mbokk yi ñu dem seeti Tamsir Soxna jërëjëf jërëjëf kontaan nañu li tax ñu kontaan mooy ñun demeewuñu ak loo xam ne dañoo ñëw imposer suñu bopp déedéet la jeunesse de Sicap Liberté ñoo ñoo taxaw waxtaan ak ñun nañu wax dëgg yàlla xool nañu ba xool ne yow yaay suñu njiglaay kon ni ma la ko waxee defar seen programme taxaw dajale seen xaalis ñoo ne ñu lii nañu am lii nañ lay jàppale yaa ñu doy ndax xam nañ ne yaa ñuy taxaw bu suñu bët xonkee ah olof Njaay de mooy wax ne kuy raam di la boot bu amee oto mën na laa yóbbaale yóbbaale say bagage ñu nag lépp loo xam ne def nañ ko fii ci Sicap Liberté mais suñu wareef la parce que mën bu dul ay xëccoo maire daf ñoo war pour ñu taaral aaral jàppale dimbali taxawu si cap Liberté bi nga xam ne fi nañu juddoo li tax mbir yi neex mooy yàlla dafa yombal yëpp ndax xale bi nga xam ne mooy sama doom te 80 pour cent de la jeunesse sénégalaise bëgg ko moo ñëw ne ma papa da nga soxlo te wax dëgg yàlla boo soxlaa ku soxla ñàkk mu ne ma papa ma ne ko naam mu ne ma danaa indi sama participation ci jeunesse yi pour bëggal leen muy Waly sekk mi nga xam ne maay baayam donc incha allah juma suba danañ ko clôturer ak soirée ak euh, show concert bu neex boo xam ne moom la ñuy offrir à la population et aux populations yi nga xam ne nekk Sicap ak Liberté dërëm bu ndaw jugewul si ñun dem ci moom ndax doom la ndax xarit la te loolu ñu xam ne moom la ñuy doxalee waajuram bu jigéen fii la dëkk ci liberté kon li ñu bëgg moom mooy ñu xam ne ñun dañoo yónni dañoo yebal dañ ñoo tegtal dañ dañoo xolloo dañ ne fii la mbiri mettee kaay nga fajal ñu ko ca turu gi ma gën a neex sax mooy bi ñu may wooyee fan yi docteur Tamsir Soxna kaay faj soxla yi docteur Tamsir Soxna eh, ngeen ne Eh. ngeen ne waaw docteur Tamsir Soxna kaay faj soxla yi docteur Tamsir Soxna kaay faj soxla yi docteur Tamsir Soxna kaay faj soxla yi ah waaw yéen a ko wax xale gàmmu annuel bu peex bi nga xam ne nag wax dëgg yàlla suñu bàyyi alaaji euh, mbay peex moo koy amal waaye doom ji tamit euh, di euh, Madiop peex ñu ngi koy nuyu le 5 février lay am wax nañ leen marraines yi bokk na ci maître Tamaro Seydi soxna Moumi kebe ak Magui Chanel magi Chanel tamit dañ ko cee ndayele ci bés bi ndax xam ngeen ne diggante Magui Chanel Magui Chanel ak Madiop peex ay xarit nañu te Madiop peex nekk na koo xam ne wax dëgg yàlla ma ngay sàmm kóllëre bi nga xam ne baayam am na ko ak diggante doomu aadama yi di xale bu yaru boo xam ne wax dëgg yàlla saa yoo gëstoo gis ko ci ginnaaw baay ja mu déggal ko tarbiyu ko waaye tamit di ko sàmmal ay kóllëreem moo tax baay ja fu mu ko joxoñ xale ba dem na fa ci yar ak teggin maître Tamaro Seydi nag bokk na ci marraine yi ak soxna Momi kebe ak magi Chanel bi nga xam ne xaritam la baram bu googu nag wax nañu ne le 5 février lay am waaye sama xarit bi nga xam ne mooy Omar Baaw moom tamit bokk na ci euh, bés boobu ñu ngi ko jal ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bés bu nekk dañ ci ñëw parce que le 5 la exigul euh, dédicace à euh, tout mes mamans du groupe Sopp Sopp Lundi de la part de la de la fille de Reka ah Reka di waaw ah, di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal jàmm waaw Reka di leen ñaanal jàmm kon mbokk yi ñu ngi dem seeti Omar Rew ci débat bi nga xam ne moo am xeex bi am ci diggante coow li am ci diggante ñaari candidat yi Cheikh Ba ak Bamba Fall seeni ay militant bu ñu leen teelul àtte ah coow dana am de loolu nag lal ci Omar Rew xam ñu seeti premier parti Omar Rew asalaamaaleykum mbokki xarit ñuy seetaan ñu ngi nuyu ñëpp rek ku nekk sa tur ak sa sant di amal mbégte bu mag ñëw seen euh, émission Kouthia Show amal réew ni ñu koy defee saa ne euh, tey nag di nuyu képp euh, kuy kilifa diine kilifa aada di ñaanal ñëpp ñu yàgg fi te wér rawatina ahlu bayti rasulullah Mamadou Makhtar lay jiite ko. di nuyu tamit sama cousine ah, borom Espagne borom ka ah, di faatu Ba tey moo ma habillé rek robe bu rafet bi ma sol tey la anniversaire am ma koy souhaiter longue vie santé prospérité beaucoup de bonheur di ko wax na yàlla defal ko jàmm ah, si yaayam ba sama bàjjen gàdd fay dëddoo ak jàmm ak salaam eh, Omar. waaw. def. waaw luy lii. xanaa dégg ma invité. waaw bu ñu invité xanaa nga toog si plateau bi. moo tax waaw man nii laa mën a waxtaanee daal. waaw Omar. Hmm? <laughs> Omar nuyool waaw maa ngi nuyu ñëpp. li doo ci wax yow tamit. dama téye sama bopp ci yéen daal. waa lu tax lan lañ la def léegi question la ñu sekk ak réponse waa nuyoo. nuyu na. Amar nuyoo. nuyoo na. Amar nuyoo ñi lay seetaan. Omar nuyoo ñi lay seetaan. Omar ñi nga xamante ne say fans lañ bëgg la. toog Omar nuyoo ñi nga xam ne say fans lañ bëgg la. Omar nuyoo ñi nga xamante ne ñu ngi jàkkaarloog yow. ngeen yàlla Omar nuyoo ñi nga xam ne dañu la dimbali. <laughs> yi daal. <laughs> waa léegi lii lan la nag moo lii lan la. waaw Omar kon noppel dégg nga. kon waxal. ok ma wax yaay Fall maa ngi lay bu baax di la ziar di la wax <laughs> di la wax sant nga macha allah comme d'habitude di la ñaanal jàmm bi rafet na macha la fay nuyoo.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 soit soir du 23 janvier ci ñaari côté yëpp maire Yoff ak maire ville de Dakar. Ah, ci barke Baye Laye Seydi bi mu yaakaar doyloo ko wóolu ko. li ñaanal ñëpp jàmm ak salaam ak ndam lu seddu guy Sénégal am jàmm na lépp dal lépp jàmm fii lay dellu si waat ndam li kon ñu yendoo jàmm. jërëjëf nuyo bi am na solo yaay Fall ñu lay bëgg bu baax a baax di kontaan ci yow. Omar. waaw ginnaaw da nga maa sori euh, question bi ma la jëkk laaj ndax dagaan baatu askan wi. dénk leen ma seen commune euh, ndax jar na xiiroo ak ngaayoo mm. xeex bu bari bi am te gis nañ ko temps yi ci dëkk yu bari bu si benn rek Médina bi Bamba Fall ak euh, Cheikh Ba gis nañ rek seeni i militant euh, xeex ak violence bi nga xam te ñu ngi koy nemmook temps yëpp tontuwuma sama yoon nekku ci laaj bi gudd na tontu bi gàtt tontuwuma ndey <laughs> ndey fay tontuwuma waa léegi bi ma la invité lu tey nga di ma ñëwuma. ndey fay tontuwuma. waaw Omar lu tey nga di ma ñëwuma sa sa plateau moo gën. <laughs> ndey pini si. <laughs> Yaay ma jublu si waa léegi noppel tontu woo. déedéet tontu wu waa léegi noppel. Mm-hmm. noppel dégg dagan batu askan wi denk leen ma ma liggéeyal leen ndax jar na bii eh, xiiroo ak ah vraiment jaru ko. wuy sam <laughs> <coughs> vraiment jaru ko. parce que ci loo xamante ne jàmm rek moo tax ñoom yaakaar naa ne si jàmm la ñu war a dox te ñoom ñoom ñooy suñu ay référence ñoom la ñuy roy parce que ñoom ay porteurs de voix lañu te ñëpp leen bëgg kon violence warul dooree ci ñoom pour man ñoom jeunes yi ñoo war a di def. yaa njëkk def violence. yow xam nga lan laa bëgg yow xam nga lan laa bëgg yow. yow mi sol deru sec dimbali ma laa la wax. yaa njëkk eh, def violence gis nga man wax. deru sec bi nga sol nii Omar Rew dama ne la wax ji man ko mën dama bëgg su may wax nga bàyyi ba ma tontu dégg nga mbaax li ma la wax dégg nga wala ma. dégg la ay. dajul. bakkan jàmm la bëgg. ah pare ngeen. pare sa jugal dem parce que ah, que man dama leen sori woon tuuti daal bañ ngeen dal sama kaw. <laughs> man man dégg ma neex xeetu lu bon rek ngeen di sol. <laughs> kii sol deru segg tubaab. tey sama cousine moo ma ab xoolal wëndeelu fay <laughs> wëndeelu wëndeelu fay ndey bëgg nga pirisile pirisile dafa xewal xaaral waaw hmm. waaw ñetti étage nga ko def bu njëkk bu dee air euh, plus trois compteur un deux woy satee barax na ci ndey loo ko satee <laughs> ndey ndey lu tax nga bëgg satee ndey bu motul nga bàyyi ko noonu loo koy satee ci biir ni <laughs> Omar lii prêt la ndey nag ndey bàyyi satee yi prêt la sol prêt Omar yow prêt la sol prêt tey ku la ñawal tey kii ma abee sama cousine bi anniversaire moom ko indil ba Espagne ba Mallorca. ba ndey bàyyi loxo yi ma xool. Mhm, yii baax na tey ndey. tane <laughs> dafa xeewi Pélissé moom dafa xeewi yow loo sol ni chemise de nuit yow de bu la boo fekkoon Dubaay nga nekk dañ naan la bonne nuit ñoom nii la fanaanu. ah mais malheureusement nekkuñu Dubaay ñu ngi Sénégal. <laughs> lu tax bëgg ay jiital desi. des la desu desu luy si mooy suñu maire yàgg ya desu. desu. xawala bu baax li ma la eh defal ni xoolal bu ma laal bul yëkkati bul yëkkati Omar waxal wax bu rafet kan la yëkkati yaa di daf may yëkkati nga def eh ndey yow yan dàll nga boolal yi ndey yëkkati sa dàll yi ka kay ndey xanaa yow trois quatre ngay jaaral nii ndey pidise pour moom toj na fii de mais kii bu fi tëjul lu muy def lii mu sol dafa rafet. waxalal kii. pour la may wax ak moom. yii mu sol dafa xeewi di pilis yi dafa yàgg dindi. day day wàcc sa kalaas. yow yow yow laa doon gaaruwaaleel rek lu bon rek la sol ndey lu bon rek lay sol ndey pilis yi. yow moo tax nga nekk ndey lu tax pilis bi jàpp ko moom moom dafa xuloo ak feer. mais ba nga ne pilis la ca xeer wàcc. Mm. pilis xeer waru fa feer waru faa jaar. Mm. te lan moo tax nga nekk defee yaa Omar réew lan moo tax yow ku teew rafet ku dem ñaaw Omar réew nga seytaane Omar lu tax nga waaba ji ba Omar lu tax nga naafeq yow taskatu réew nga ah. gis nga ñiy taal réew mm. taaluñu ñu de yow yaay taalkatu réew bu mag bi ndax li nga koy taal sa làmmiñ bii lay jóge mm. man nag mënoo maa jaxaseeg mbindeef muy dox ci koo suuf mm. ndax yow kenn nawloowu la déjà kenn nawloowu la ba nga tuddee Omar réew la la kenn nawloowu mënoo fi jox kenn conseil mënoo fi jox kenn solo moral xanaa tey sa jëkkër ci yow la sa yoon new ci xanaa ci yow la ay loolu bu ko lijjanti <laughs> xanaa yaa aaya tey ko lijjanti yow dësu rek ngay sol dësu lii la yàlla dogal dësoo ma neex dësu dafa yàgg jéegu baa ngi nii toog jéegu dësu baa ngi nii taxaw Lagos yow baa ngi nii taxaw billaay wallaay da xam nga bu jabaru jaamu da xam nga ne fanaan boo ko yëkkatee ma yëkkati salu ban la wax dafoo jën a jàpp da ngaa dox eh lu la nga yëkkati sama yére yow yow man lu ma la bëgg a yi ñu ngi nuyu bu baax ki nga xam ne nag euh, suñu xarit la mu ngi bàyyi xel ci fu mu nekk waaye am nañ mbégte contentement di wax joyeux anniversaire à ma cousine euh, faatu Ba depuis Yaraax longue vie euh, santé de la part de Ndeye Faye et ma moom cousine Fatou Ba la moom tamit ñu ngi koy remercier di ko nuyu moom di ko ndokkale di ko happy birthday to you fan bu gudd wér gu yaram jàmm ak salaam ci ki nga xam ne moom mooy Fatou Ba nekk ca Yaraax de la part de Ndeye Faye dédicace à Mounas Samba responsable politique APR foofu ca Yoff rakk ci euh, Diouf Sarr chéri Codé borom euh, États-Unis de la part de Karalebou dédicace à euh, sergent chef Mamadou Ndaw maintenancier en biomédical à l'hôpital militaire de Ziguinchor Sémias zone sud de la part de Karalebou mbokk yi Babacar Diop bi nga xam ne nee na moom xam lay xaar le 23 ci guddi nee na ci mairie bi lay fanaan yéen pour yéen Babacar Diop nekk na fi di campagne yi di jàppale Baye moom nee na nee na nee na 4 heures 4 mu takk ay bagages am moom ci mairie Thiès day fanaan waaw mais Babacar Diop mais man xam nga man Babacar Diop lu tax man Babacar Diop neex ma Babacar Diop moom jox na boppam résultat ba pare nee na moom fu mu génn nit ñi ñoo koy wax na carrément delluwaatal Babacar Diop candidat mairie bu Thiès jàpp na ay takk na ay bagages am ba pare nee na dimanche le 23. incha allah rabbi 4 heures dana ko fekk ci mairie bi nee na fa lay fanaan ñu seeti Babacar Diop. ba gazam yëngu Babacar yaa yëngal gazam ba gazam yëngu Babacar yaa yëngal gazam ba gazam yëngu Babacar yaa yëngal gazam ba gazam yëngu Babacar yaa yëngal gazam ba gazam yëngu. yow la ñu gëm de macha allah yéen bu leen sonn <laughs> bu leen sonn. sonn bu leen sonn yéen kay xam nga fan ngeen war a sonnee résultat yi à partir de cinq heures cinq heures et demi maa ngi taxaw sa buntu kër di leen xaar <laughs> demuñu fenn lu dul dem ci maire bi ut ay taabul yu bees chaise yu bees toog ndokkale suñu bopp wax félicitations à moi pare na ba noppi day déglu turam daal pare na ba pare day déglu turam Babacar daal ah. daal pare na ba noppi day déglu turam eh, dégguma dara daal pare na ba ba day déglu turam ah na ba noppi day déglu turam ah, na ba noppi day déglu turam waaw pare na ah. na parce que xam nga lu tax ma kontaan pas-pas bi ma am ak gëm-gëm bi ma am ba xam ne jàpp naa ne monsieur le maire laa ni nga ma ci fekk see dama ci kontaan xam nga lu tax parce que gelewaar yi gëm nañ ne ñun am nañu ndam ba pare ni ma toogee nii ba ñu defal ma turban wu monsieur le maire toogaay toogaayu ne monsieur le maire kon wax fa dëgg yàlla félicitation à moi aw la ñoo woteel ñoo tey aw la ñoo woteel jërëjëf maa ngi gërëm population bu Thiès kontaan bi ma am mbégte bi ma am incha allah dimanche le 23 gunge gi ngeen ma war a gunge ma dem toog ci place bi mbégte bi may yëg gelewaar yi kontaan ñi sant Diop kontaan ñi sant Ndiaye kontaan ñi sant si kontaan ñi sant Konaate kontaan mboolem sant bu nekk Thiès kontaan ah wax dëgg yàlla monsieur le maire Diop la war a sant. yàlla

محمد رسول الله صلى الله على محمد رسول الله محمد عبد الله جامعين صبيم سيدنا محمد محمد رحمن الرحيم ملك الحدوث السلام المؤمن محيمن العزيز الجبار المتكبر ma Massamba Mbacké ak Soxna pend dëkk ca tubaa ñu ngi leen di ñaanal kenn dalu jàmm di leen ñaanal tamit yàlla dafa leen jàmm fan bu gudd ak wér-gu-yaram nag di bég ci ñoom ah, ci li nga xam ne nag moom mooy seen cofeel ci biir émission Kouthia Show di Serigne Massamba Mbacké ak Soxna pend dëkk ca tubaa ñu leen ñaanal kendalu jàmm ah, ci ah, cofeel bi nga xam ne am nañ ko ci émission bi nga xam ne moom mooy émission Kouthia Show wax nañ leen nag wax dëgg yàlla ñu ngi wax màggal gàmmu annuel bu peex bi nga xam ne nag ma peex mu ngi ci invité ay xaritam ku ci mel ne nag euh, Magui Chanel bokk ca marraine yi jërëjëf Serigne euh, Borom Touba waaye nag euh, di gërëm tamit bu baax Ahmadou Sall nga xam ne nag moom mooy taaw ci Macky Sall moom tamit ci parrain yi la bokk waaye tamit di gërëm tamit bu baax kam Samuel Sarr mi nga xam ne nag wax dëgg yàlla ca parrain yi la xam ne moom mooy Omar Bawo ca parrain yi la bokk bu ñu fàtte tamit ki nga xam ne nag moom mooy géwél des VIP di Alassane moom tamit ca parrain la bokk fàtte ki xam ne mooy Soxna Wuli Kebe moom nag Mbaye Diop peex ne nag ci parrain yi la bokk ak ki nga xam ne mooy soxna Faati euh, Mbàkke ca marraine yi ak soxna Faati Sidi Mbàkke ca marraine yi la bokk euh, gàmmu annuel bu peex par ma Diop peex mi nga xam ne wax dëgg yàlla mu ngi ciy dox soxna Jaara Buso Mbàkke maam Buso Baali euh, Muntaxa moom tamit ca marraine yi la bokk bés boobu nag le 5 février lay am mbokk yi xam nga ku ñu seeti ki ñu seeti mooy Nafisatu Diouf gis nga Nafisatu Diouf bii journaliste la boo xam ne ma nga woon ca RTS waaye yàlla da ko baaxal mu nekk koo xam ne ku mën li muy defar la commune à la euh, candidate à la commune de Rufisque euh, fi nga xam ne mooy Rufisque Est waaye ku am xalaat koo xam ne féministe la dafay dox ci li maanaam ak jigéen yelleefu jigéen gis nga candidat yu jigéen yi wax dëgg yàlla dañu mérité ñu jàppale leen ndax jigéen nekk maire ci gox moo ëpp yërmande te jigéen yi war nañoo mérité ñu jox leen ay candidature Nafissatou Diouf bi nag liggéey na ko kii dafa bëgg président Macky Sall ci xolam ndax xam na ne jigéen la boo xam ne ah càmminam di Ismaïla Madior moo laaj commune bi moom mu laaj Rufisque ñu seeti Nafissatou Diouf mi nga xam ne wax dëgg yàlla ah ku baax la ñu seeti Nafissatou aw la ñoo woteel ñoo aw la ñoo woteel aw la ñoo woteel ñoo aw la ñoo woteel na tey aw la ñoo woteel naa wallaay wallaay dañuy wax ne kontaan nañu pour les femmes. amatuñu jot solu amuñu jot amatuñu jot lekk amatuñu jot naan ba tey sax boole ma xoolee fi ma génnee nii tey damaa débrouiller rek solu parce que xam ngeen ne wax dëgg yàlla li ma bëgg moom mooy ñu jéem a fexe ba jéem a jigéen ñi nga xam ne ñooy candidat ci Benno Bokk Yaakaar ñu doolal leen ba ñu mën a am ay euh, commune et je pense que vraiment c'est le moment que les femmes dirigent certaines communes parce que la femmes sénégalaise mérite que ñu daal di koy valoriser ci ay distinction ak ay direction yoo xam ne daf ko war a am ndax jigéen avant tout moom mooy ki nga xam ne moo am jot dem di voter commune de que Est bi bu ko jigéen yoree rawatina man mi nga xam ne may Nafissatou te gis ngeen acte social yi ñuy posé ak orientation yi nga xam ne ñu ngi koy def pour la jeunesse féminine fexe ba àq ak yelleefu jigéen ci biir doxalinu euh, gestion de commune ñu daal leen gën a valoriser. Euh, ñàng ñàngale bi nag dinaa ci def lu am solo bëgg naa vraiment jàppale xale yi. defal leen ay bourse comme d'habitude former leen ñu am formation jox leen bibliothèque yi xale yi delluwaat di lire ñu jël li nga xam ne mooy commune Rufisque Est daal di koy def connexion ci fi nga xam ne moom mooy espace vert yi nga xam ne dinga mën a connecter gratuitement jigéen ñi nga xam ne dañuy yëngu ci salon de coiffure bi gis nga fi ma génnee tey salon de coiffure bi ñu daal di leen jàppale ci ay casque jàppale leen ci ay maquillage former leen utal leen ay partenariat ñu nekk au diapason de la mode et de la coiffure te ñuy consommer nag suñu ay artisan à Tëngéej di ñëwloo Tëngéej di solo te nga tey boo ma gisee nii xam na ne vraiment je suis 100 pour cent Rufisquoise ville culturelle ville historique jigéen ñi ñu jox leen seen dayoo jàppale leen taxaw leen yërma leen yërëm leen te ñu fexe na ne so y a pas de sot métier gis nga man je suis journaliste chercheur écrivaine nekk ko xam ne tamit damay dox ci média te tool lu ma ko may mooy fulla ak fayda waaye léegi imagine leen ma nekk madame la maire. Eh, Alassane Nafi ma ñëw ma ñëw moom ngay tëjee may jàppale sama càmmin Ismaïla Madior suba ci àjjuma ji lay tëjee Arafat. ñuy woo toutes les femmes ñu daal dee ñëw wane ne que la femme et la force des propagandes à mobilisation ñu ñoo nekk devant ñoo nekk derrière munuma fecc nag mais je suis de jeune lébu séeréer lébu nga ne Alassane lan. Alassane Seck Alassane Ndiaye. wallaay ñoom sotu la ñu àndal la ñu laaj dañ si jot. Alassane Seck Alassane Ndiaye nga ne ñoom ñu àndal. ala ñu laaj ala ñu laaj ala ñu laaj ala ñu laaj ay ذاك أبو الكبريت الأحمر والقطب المكتوم والبرسخ المختوم والهمام الأفخم والعيلم العلم أبو الفيض السمداني Joyeux anniversaire à Israël chérie Angela Diatta longue vie santé beaucoup de prospérité euh, di ko ñaanal jàmm ak salaam moom Israël euh, chérie Angela photo mi ngi noonu joyeux anniversaire à Soxna Dramé jigéenu Karale bu borom baax longue vie santé et beaucoup de réussite moom mi nga xam ne moom mooy euh, Soxna Dramé à madame Ba joyeux anniversaire Fatoumata Baldé yaayu Seexi longue vie santé bonheur et prospérité à toute la famille kon mbokk yi dem tëj ak Omar Rew débat bi nga xam ne moo tëj émission bi ñu delluwaat di gërëm képp koo xam ne yaa ngi doon euh, seetaan émission Kouthia Show suñu mbokk yi nekk ci biir ñëpp ñu leen di gërëm di delluwaat di gërëm Serigne Massamba Mbacké ak Soxna Penda nekk ca Touba ñu contentement ci ñëpp di delluwaat nag di soññaat doomu aadama yi que yoo àlla sureen yal na yàlla sutural te daa def li nga xam ne nag moom mooy sutural suñu biir loolu mooy indi jàmm nañu sutural suñu biir te bañ di génn ay wax yoo xam ne dafay yee fitna gis nga àddina buñ ci nekkee nit ku nekk da ngay sa moom sa bopp nit ki mën nga koo sopp cofeel lu jiitu ci xol yàgg ci te ku jiitu ci néeg bu la moo lay wan fi nga toog am na ñoo xam ne boo leen ba sopp doo leen bañati waaye luñ la waxal tamit ciw du tee cofeel ba nga xam ne moo jiitu ci nit ke mun ta bañ a mu mu mu mun ta dañ bu dee lu dëgg la nañuy suturaalante tey xam ne réew mi buñ ko buñ ko jubbantiwul wax dëgg yàlla kenn ku nekk da nga euh, duggante ci ay waaso ndax génnante sullante ay mbóot yi dara jaru ko di topp ay cas di topp ay cas def ko métti xëy di déglu ay information mbaa ca dugg na fekkee dugg na fële toog di wax ay wax yoo xam ne ay détails la wax dëgg yàlla Sénégal dañoo tardé dañoo arrière lii moom wax dëgg yàlla autorités yi wax dëgg yàlla da ngeen a nelaw ndax coow lii mën ngeen koo faj te mën ngeen koo réglé lii ñuy bàyyi di ko layam layam nii di ko déglu mu mel ay épisode muy dem chaque jour buñ ko arrêté wul ëllëg dinañ fi wax loo xam ne ku nekk da nga dar salamin si sa gémmiñ nañu arrêté wax naa lañ ko am na yoo xam ne li koy sundu dafa yàgg te arrêté wuñ ko ay fait divers ay diw def na lii sama jabar def ma def lii sama jëkkër def ma lii loolu yëpp ma a commencé ca rajo ya ca rajo la commencé y a des yoo xam ne wartul am dañ ko war a supprimer émission day yedde ak day prévenir xale bi réer na kii mooy ndeyam nañ ko seet waa ji dafa génn seetkat bi ne ko lii liggéey bi lii ñu dox ci affaire kat yi ak ñiy naxe loolu la ki doon def Euh, loo xam ma sàmba ma sàmba gën laa xam boppam te nekkoon ci Sud di Pape Joxaane moo ko doon def ci fait divers te lam ci doon def mooy gindi nit ci naxaate yi ah <laughs> ama réew ci réewande lay waxe deuxième partie Omar Rew lañuy la ñuy ñëwaat Euh, campagne bi jeex na. Mhm. tey boo doon def bilan ana lan lay doon. nga campagne électorale mhm. jeex na. Mhm. bilan tey buñ la waxoon nga tënk nga def bilan. waaw suba lay jeex incha allah. suba lay jeex waaw. bàyyi ko mm, bàyyi jeefal tey boo ñu doon tënkal bilan ana lan nga ñuy wax rek ci campagne bi 15 jours yi nga xamante ne rek suñu politicien foo euh, génn tas ñoom hmm, euh, képp ku leen soxla woon. képp ku leen doon soxla da ngay jaabante seen i bureau ba son mais instant bi foo tourné gis leen euh, tey bilan boo ñu doon defal ana lan lay doon. waaw billan bi ma gis mooy xam nga kam euh, à part bi ci xaw a am tuuti rek moom laa ci xaw a ñaawlu mais wax dëgg yàlla campagne nañ ko te yaakaar naa ne suba ak jàmm dina jeex ci jàmm ak salaam dëgg la daan nañ jafee gis mais xam nga tamit. mënuñu ñoom seen liggéey permettre wu leen chaque instant chaque instant boo leen soxlaa gis ko. pas instant quoi mais boo leen soxlaa dëggantaan daal comme nga soxla nga parfois nga dem. Oh. soxla la non non waa benn bokk yaakaar moom heure boo leen soxlaa da leen di gis. ci loo xam ne lu urgent lu mënul xaar da leen di gis mais mënoo tout le temps tout le temps tout le temps boo leen soxlaa di leen gis ak campagne bi nii c'est normal. fu ñu tourné gis leen c'est normal. sunu maman Daara Mbaye de waaye yow yow Omar yow plateau bi lan la. ma maman Daaru Mbay nee na boo ko maytulee dina jógee këram ànd ak sama papa maam les Thioune mu ñëw fekk la fi Daaru Mbay lépp na fi ñaari xar fayuma ah bon ma ñëw mu may tàggal samay maam naan Yoro Sow mooy sa baay acca Sow moo ko jur ma ne ko Yoro du sama baay non <laughs> boobu moom am na ma ñaari kar waaw yéen ñaar ñii waaw dama leen bëggoon daal jox information muy banati mhm. duggulet yéen da bàyyi seen yoon ci naka parce que da am jigéen bu nekk ci yeen di liggéey ak yéen. Mm. muy baax yaay kitiir. kitiir. Mm, mati. Mm. di ñaw lu rafet di def lu rafet ngeen ne ko fi ñukk bàyyi di dem ci ay ñas ak Lamine Ndaw bii ngay tudd. ndax yéen da ngeen ko yéene wul seen xaalis waaw question la bàyyi ko am ay yëre yu bon mm-hmm. moo tax yéen buggu leen daal lu baax ndax ki jël baax yaay kutiir tuddee ko yaayam. Mm. di ñaw lu baax ngeen ne bëggu leen lu baax lu bon ngeen bëgg. Mm. wax dëgg yàlla yéen daal kenn xamul seen. billaay wallaay taalaay man ci télé laay waxee. bouton. bouton pour service de nii rek la. ndey. paasaa yii nga def nii nga mel ni ku takk ceinture. ceinture la yeew sa kol gi. ceinture la ah ceinture la. ceinture la ndey sa biir bi day métti xanaa loo tax yeew ko nii. robb bi ñi nekk o diapason ñoo ko xam. tontu ko ñoom laay waxal. Euh, pare nga ma tontu si baax yaay wala dafa am beneen question. dama leen tontu si baax yaay. waaw lu tax ngeen bugg leen ñawlu ci mati. mati suñu rakk la. Mhm. man dama am ay machine damay ñaw di jaay. kon moom. comme mati. sama rakk lu sa bopp ya parce que instant bi dama ko wekki mais ñas moo doon sama tailleur ak ñeneen ak Fallou Touré. Mm. ak euh, El Hadj ñoom ñett ñoo ma doon ñawal sama kër may jaay. Mm. léegi dama wekk samay machine su ma amee émission ni euh, apply rek moo may ñawal parce que moo ma gën a jege. Mm. waaw loolu la yow lu tax yow mënoo dégg. yow am nga jotul expliqué ko mat ak ñi may seetaan di. ñoo tay ah, day jeex. Ah, man moom a tey waaye foo leen foo leen di jëndee tiis xanaa ca marché ba marché yéen daal booleel solo solul solo mm. solul leen Lagos ah yéen daal pour yéen solo wu leen daal ngeen di jéem a débrouiller nag ut piis yi gën a bon yi ay semis di nii nii bi ndey tey boo dindiwu ndey tey bi la xam nga loo may. xam nga woo sa nag nekkate ay ndey. du ma lay niroo. ndey xanaa dëkkoo Cambérène. Cambérène Cap Médine fa dëkk neex dëkk Rowlay Issa. yow <laughs> dëkku Seydina Issa. kon kay Al Ousseynou Laay ibnu Rowlay ibnu Imaam Laay kulli Imaam al Imaam al Aramayni. dëkku Baye Raan. waaleykum salaam dëkku Baye Ablaye Thiaw dëkku Ahlu Bayti Rasulullah foofu laa dëkk Cap moo tax nga longu maas xanaa géej gi nga jàkkaarloo yëgoo tàngaay bi xanaa. non tàngaay bi yëguma ko parce que géej gi laa jàkkaarloo wax nga ko te su may quitté bàyyi ngeen Lagos léegi gaz ngeen jël segg kaay café ndey tey café boo romb jaaykatu kafe boo romb dana dana rus ndax lii ñuy seggee moom nga jël pilise bii xool lii di nuur ak mille pili boo reyee xar am na mbaq bu ñu naan mille pili moom benn la ndey waa kay ndey lu tax nga ko ak saté waaye yow Omar yow lan la Omar képp ku ma yeeyaa wan nee na ma ko dama la bëgg a ab mais damaa ragal Omar réew. xadi gëstu xadi bàyyi ma ibbi nit ñi. da nga fañ ibbi sama yére yow. kaay leen kaay leen ñu tàggatoo. eh eh du ma ko mën daal ak fële nga taxaw ci. <laughs>